jaare ko jëwriñam yi nga xam ne jaare ko nag ci jëwriñam ji nga xam ne yàgg naa ndigal kër Cheikh Fall yàgg naa indi ndigal kër Cheikh Ibrahima Fall yàgg naa indi ndigal kër Cheikh Ibrahima Fall yàgg naa indi ndigal kër Cheikh Ibrahima Fall waaw naa bëgg naa bëgg ñëpp jot ci ba mu leer nañ sëriñ bi nee na dafa bëgg ñëpp jot ci rek ba mu leer nañ muy Cheikh Moudou Bachir muy Cheikh Moudou Bachir moom Serigne Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacké moom Serigne Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacké ñu ngi ñaan suñu borom moom itam mu yàggal ak dundam lool te ko. mu indi ko nag ci jëwriñu Cheikh Fall mu indi nag ci jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall bi. Cheikh Modou Moustapha. Cheikh Modou Moustapha. di sëñ Fall moom sëñ Modou Benda. di sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Fall Benda. ñu ngi ñaan suñu borom yàggal dundam gi te wéral ko. ñu ñaan suñu borom mu yàggal ak dundam lool moom itam te wéral ko. mu jaarale ko nag. mu jaarale ko nag ci. ki mu def muy jëwriñam. ki mu def nag muy jëwriñam. wax na ko ba wax na ko nag ba ñëpp dégg ko di sëñ Cheikh Fall. di Serigne Cheikh Fall. moom Cheikh Moussa. moom Cheikh Moudou Moustapha Fall. ñu di ko wooyee sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue. ñu di ko wooyee nag Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue. ñu ngi ñaan suñu borom moom itam. ngi ñaan suñu borom moom itam mu yàggal ak dundam lool te wéral ko. mu teg ko ci loxol nag. mu teg ko nag ci loxol nag. jëwrinam ji Serigne ji di Serigne Fallou Fall. moom Serigne Modou Aminta. moom Serigne Modou Aminta Fall. mu waxaale kilifaam yëpp nag. nag moom Serigne Fallou kilifaam yëpp nag. seen kaddu la gàddu. seen kaddu la gàddu. ngi ñaan suñu borom mu yàggalal ñu seen dund ñoom itam. te wéral leen. te wéral ñu leen. jëwriñ Serigne Touba di xamle nii. jëwriñ Serigne Touba di xamle nii. ndigal la mu joxe woon. ndigal la mu joxe woon. mooy li wër Touba di corniche li wër di corniche bi te leeral ko leer naññ nag dañ leeral ko nag ba mu leer naññ nag ku ne xam ne jëwriñ Serigne Fall ji de ku ne xam ne ne jëwriñ Cheikh Ibrahima faal ji de la jëwriñ Serigne Touba digle woon la jëwriñ Serigne ji digle woon ànd naa njabootu ànd naa njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp jëfe ko ba jëfe ko na koy njortam jëfe ko nag ba jëfe ko nu kawe njortam kon nag yàlla yàggal liggéey Serigne Touba kon nag yàlla na yàggal liggéeyal Serigne Touba njabootu Serigne Fall gépp ànd ko njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp nag ànd koog moom mu wax ne dafa bëgg. mu wax nag ni dafa bëgg. moom jëriñ Serigne Touba ja. moom jëwriñ Serigne Touba ja. ndigal loolee mu joxoon jëriñ ni Fall. ndigal loolee mu joxoon jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall ja. moom la yeesalaat moom nag lay yeesalaat. muy mboolem mboolem lu leeraloon. muy mboolem nag lu mu leeraloon rek. na na ko sàmmal nag. naka ko sàmmal nag. la jëkk mooy. la ci jëkk nag mooy. li wër de di corniche bi. li wër Touba di corniche bi. muy juróom-ñaar fukki mètres yi. muy juróom-ñaar fukki mètres yi. mooy loolu sëriñ bi nee na Baye Fall yëpp mokkal nañ ko. ak ku sa yaakaar ne sëriñ Touba sax. ak ku nekk ci sëriñ Touba sax. réew itam. won nañ la liggéey bi. ba mel ni da ko fekke woon. ba mel ni yow sax da nga ko fekke woon. loolu sëriñ bi nee na leer na nañ. loolu la sëriñ bi yeesal nag. loolu nag la sëriñ bi yeesalaat nag. muy corniche bi. muy corniche bi. marché Ocass. ya. kamb ya. non noonu ko defaree non ni ñu ko defaree ba mel na si bëgg ba mel nag ni sëriñ bi bëgg dafa bëgg nag mu sàmmal ko dafa bëgg nag mu sàmmal ko ko nag rawatina biir marché occas bi rawatina nag biir marché occas bii sëriñ bi daa bëgg sëriñ bi nag dafa bëgg képp ku sa yaakaar ne sëriñ Touba képp ku sa yaakaar nekk ci sëriñ Touba nga nekk ci biir dëkk bii nga nekk ci biir dëkk bii loolu mu def loo woon jëwriñ Cheikh Ibrahima loolu mu def loo woon jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall ba noppi di ko di ko sàmmaloo ba noppi nag di ko ko sa ko ko du liggéeyu kenn du liggéeyu kenn de du liggéeyu rek ndax du liggéeyu murid yi rek rawatina Baye Fall seen biir liggéey bi lislaam bépp la. liggéey bi bépp la nee na. ndax sàmm Touba kat. ndax nee na sàmm Touba kat. ku ku lislaam ñor ku ne. ku lislaam ñor ku ne. la nga wax dëgg ci yow. la wax nag di dëgg ci yow. sàmm Touba war na. sàmm Touba moom war na la. kon ñëpp la ko sëriñ bi dénk. kon sëriñ bi nee na ñëpp la ko sëriñ bi dénk. waaye dafa am njiit nag. waaye nag nee na dafa am njiit. njiit la mooy. njiit la nag mooy. jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Moudou Moustapha Fall. muy xamal nag mboolem ku nekk ci muy xamal nag mboolem ku nekk ci dëkk bi. loolu ñu leeraloon ba noppi. loolu ñu leeraloon ba noppi luñ ci fekk ñu tegaat fa lu néew néew luñ ci fekk ñu tegaat ko fa lu mu néew néew luñ la ci sant luñ la ca sant yàqal la taxul yàqal la taxul bëgg laa defaral bëgg laa defaral rekk tax waaye njabootu Cheikh Fall gii waaye njabootu Cheikh Ibrahima Fall gii jëwriñu Cheikh Fall gii jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall gii duñu yàq mukk duñu yàq mukk luñ def lu ne def lu ne ak defar lañ ci ak defar rekk lañ ci jublu sëñ bëgg a leeral nag moom jëwriñu Cheikh Fall gii sëñ a leeral nag moom jëwriñu Cheikh Ibrahima faal gii ndigal loolu ko sëñ Tuubaa jox ndigal loolu ko sëriñ Tuubaa jox Cheikh Moudou Mountakha. Cheikh Moudou Mountakha. na ko ñëpp jàppale. na ko ko ñëpp jàppale. rawatina njabootu Cheikh Fall rawatina nag njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi na ci ñëpp jàpp na ci ñëpp jàpp rek nee na ñi ñu tànn nag ñii ñu tànn nag muy fukki yi muy fukki bunti yi ak ñi Cheikh Fall seexaloon seen maam ak ñi Cheikh Ibrahima seen maam mbooloo moomu daje mbooloo moomu daje bëgg a sàmm loolu lii bëgg a sàmm nag loolu yi na ñëpp ànd ak na ñëpp ànd ak ñoom na ñëpp ànd ak ñoom ci sàmm gi ci sàmm gi ku ñëw fi yow ku ñëw fi yow la nga teg fi barab la nga teg fi barab su nee la du fii su nee la nag du fii nan la wax fa mu doon nañ la wax nag fa mu doon nga teg ko nga teg ko fa yow te xam ne nag foofa ci la sa jàmmi tey jii nekk ci la sa jàmmi tey jii nekk ci la sa jàmmi ëllëg nekk sa jàmmi ëllëg nekk loolu sëriñ bëgg ñëpp yëg loolu kat la sëriñ bi bëgg nag ñëpp maase yëg ko moom yàqunu moom sëriñ bi nee na yàqunu de tooñ taxu leen a jóg tooñi taxu leen a jóg defar rek leen tax a rek moo leen tax a jóg ndax eh, soo gisee sëriñ bi di sonn ndax nee na boo gisee sëriñ bi di sonn nii ci ñun moom moom sëriñ Touba moom sëriñ Touba jëwriñam ju baax ji jëwriñam ju baax jii moo nu bëgg a defar moo nu bëgg a defar ne su fekkoon noo bëgg ku ñu defaroon ne su fekkonte ni ñun ñoo bëgg ku ñu defar kon ba tey banoonu kon ba tey banoonu noonu li nga bëgg a defar nag li nga bëgg a defar nag yaa cay sonn yaa cay sonn yow nde li bëgg nga defar ko nde li bëgg nga defar ko yow bu la naree jaaxal nga ba ko bu la naree jaaxal nga ba ko moom moo nu bëgg a defar moom nag moo nu bëgg a defar moom moo tax fu ne mu di fa jaar moo tax fu ne nag mu di fa jaar ak ñun kon na ñëpp jàpp ci seen xol kon nag na ñëpp maase jàpp ci seen i xol jàpp ci seen i xel jàpp ci seen i xel nii ni li sëriñ bi defar li sëriñ bi defar noko mom noko mom nun rek la bëggal nun rek la bëggal bu dee ci biir jaba di marché occas bu dee ca biir jaba di marché okas lepp lo xé ne ab tali la lepp lo xamni ne ab tali la sëriñ bi day bañ sëriñ bi nak day bañ ku fa laal dara ku fa laal dara lu laal bi rek lu laal bi rek kun fa fekk kun fa fekk ni la jógal ni la jógal yow lañ bëgg a defaral yow lañ bëgg a defaral ànd la ñoom jóg àndal ak ñoom ca jóg ndax moo gën leneen di la ci dikkal ndax moo gën kat leneen di la ci dikkal ndax ñuy jiitu ñuy jiitu ndax ñuy ay kilifa ay kilifa lañ aw aw aw di bëti sëriñ bi di bëti sëriñ bi di ay tànkam di ay tànkam di ay loxom di ay loxom kon nag lépp luñ la defloo sëriñ bee la ko defloo sëriñ bee la ko defloo loolu kat la sëriñ bi bëgg nag murit yëpp marché xam ko marché occas jëm Cheikh Ibra Fall ji jëmmi Cheikh Ibra Fall ji jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji jëwriñu baa ko gënal lu dul moom marché baa ko lu dul moom daa bëggoon lu fa jaar lu ne daa bëggoon lu fa jaar lu ne fay jaayee lu ne luñ fay jaayee lu ne mu boole jar mu boole jar ak barkeel ak barkeel loolu nag jaayee ko ci kaw ndigal loolu nag jaayee ko ci kaw ndigal mooy tax loolu mën noo dal mooy tax nag loolu mën noo dal loolu loolu mu bëggal loolu yi mu ñu bëggal mooy tax mën noo dal kat mooy tax kat mu man noo dal ku xam ne ku ne xam ne nee na kaw kawub tëli moom kawub tëli moom ku fa teg ku fa teg am jaay di ko jaay di ko jaay ak bon taxul ak bon taxul de xamadi rek xamadi rek tax ñàkk xam su ko xamul nag ku xamul nag suñ la xamalee suñ la xamalee da ngay nangu da ngay nangu lañ la xamal mooy tax ka la ka la xamal jëriñu mooy tax ka xamal jëriñu yow mi muy xamal nga jëriñ yow mi muy xamal it nga jëriñu sëriñ bi laa bëgg ñëpp jëriñu sëriñ bi nag dafa bëgg ñëpp maase jëriñu te kenn du loru te kenn du kenn du lore kenn du lore loolu si bëgg loolu yi la sëriñ bi ba bëgg nag ñu wax kàddu yi bëgg nag ñu wax kàddu yii ci aw turam ci aw turam nag ba ñëpp dégg ko ñëpp maase dégg dégg ko lépp dégg ko lépp dégg ko fépp dégg ko fépp dégg ko ginnaaw dégg itam ginnaaw dégg itam nee na nu jëfe ko nu jëfe dégg ndigal loolu yi nag ku ne jot li nag ku ne jot li kàddu yi kàddu yi ni jëwriñ sëriñ Tuubaa nee na ni jëwriñ sëriñ Tuubaa ja nee na jëwriñ Sëriñ Fall ja nee na jëwriñ Ibrahima Fall ja nee na lii ñu ko digal lii ñu ko digal mu bëgg koo jëfee mu bëgg koo jëfee ànd koo yéen ànd koo yéen loraange taxul. loraange taxul de. yàq taxul yàq taxul it. tooñ taxul tooñ taxul it. defar defar. moo tax. kon nag ñëpp déglu loolu kon nag ñëpp maase déglu loolu yi. te jëfe ko te jëfe ko nag. ku sa yaakaar ne Serigne Touba rek. ku sa yaakaar nekk Serigne ba noppi. liñ defaroon ba noppi. def ci marché bi. loolu yi ñu def ci marché bi. bëgg jàmm rek tax bëgg jàmm tax nee na. ñi ñi nga xam ne nag uh, alal dong fa indi. ñi nga xam ne nag alal dong nga leen fa na. waaye lenn lu sëñ bi indi ñoru leen. waaye lenn lu bi indi ñoru leen ñoom. ñooy def loo xam ne. ñooy def nag ñoom loo xam ne. dëppoowul ak bëggu sëriñ bi dëppoowul ak bëggu sëriñ bi ñoom. waaye ñi seen yaakaar nekk ci Cheikh Ibrahima Fall. nga xam ne bëgguñu sëriñ bi dara lu dul. ngërëmam ngërëmam rek. ñooñu duñu yàq. ñooñu duñu yàq. duñu tooñ duñu tooñ. duñu fo duñu fo duñu moy duñu moy ci yoon te yoon wa rek la ñuy nekk. na ñëpp xam loolu. ñëpp nag maa si xam loolu. ku bëgg a raaxaloo ci biir nag. ku bëgg raaxaloo nag ci seen biir nag ñoom. di yàq ak a tooñ. di yàq nag ak a tooñ. Baye Fall yi dañoo ànd ak. Baye Fall yi dañoo ànd ak. gendarmerie. ñëpp la àndal. ñëpp la ñu àndal. ku ku def lu dul noonu. ku def nag lu dul noonu. ñu jàppale yóbbu. ñu jàppale nag yóbbu. te dootoo génn ba faaw dootoo génn nag de ba faaw nag. waaw ñëpp ñëpp la si ñëpp la ko si waxal. ñëpp nag la ko sëriñ bi maa si waxal. nag ku ne jotali kàddu yooyu. nag ku ne nag jotali kàddu yooyu. ba ba ba ku ba ku dul yow jot yi. ndax ndax bi sëriñ bi wax. bi sëriñ bi wax. day daggi murid yi day daggi murid yi ndax xam ne ñoom li xam ne ni ñoom li sëriñ bi bëgg ñoom murid ñoom ñi nga xam ne nag dara indiwul leen lu ci dëkku sëriñ Touba bii lu dul am koom képp am fi indi ñoo yàq ñoom tooñ ñooñu nag ñooy maase yàq ñoom ak di tooñ waaye ñi bëgg a wéetali Touba a wéetali Touba ànd ak sëriñ Touba ci bëggam ànd ak sëriñ Touba yàq mukk duñ tooñ mukk duñ tooñ mukk li feeg ñoo koy tey li feeg ñoo ngi koy tey ñoom na ñëpp xam loolu na ñëpp nag maase xam loolu ku ngeen gis muy def loolu ku ngeen gis muy def loolu du noona du noona ku ngeen gis muy def loo xam ne. kuy ku ngeen gis muy def loo xam ni. bokkul la sëriñ bi digle. bokkut ak la sëriñ bi digle. du du dara ci dëkk bi. du dara moom ci dëkk bi. waxuma ak dara sëriñ bi. waxuma nag di dara moom ci sëriñ bi. du dara ci sëriñ bi rek moom. na ñëpp téye kaddu yi. na ñëpp nag maa si téye kaddu yi. kaddu yi sëriñ Fallu jotali. kaddu yi sëriñ Fallu Fall jotali. kilifaam moo ko jotaloo. kilifaam moo ko ko jotaloo. kilifaam jotaloo ko. kilifaam jotaliloo ko ko. kilifaam jotali ko ko. kilifaam jotaloo ko. kilifaam it jotali ko ko. ba muy ba muy jëw sëriñ Tuubaa ja. ba muy egg nag te jëwri ni sëriñ Tuubaa ja. na ñëpp xam loolu na ñëpp nak ma sa xam lo li wa rew mi tam wa rew mi tam nako ñepp deg nako ñepp deg wa bitim rew wa bitim rew nako ñepp deg nako ñepp deg ñëpp bi ak defal la bëgg tay sëriñ bi ak defal rek la bëgg tay ji ñu la bëgg ëlëk mom la bëgg ëlëk te li mu digle te li mu digle nak ñu jëfé ko ñu jëfé ko moy waral suñu defal tay moy waral suñu defal tay ak bu ëllëgee ak bu ëlëgé kaddu yaa ngi sëriñ bi neena nak kaddu yaa ngi noonu yi ñaan suñu borom neena mi ngi ñaan suñu borom mu suñu xol mu natal nu nak suñu xol ñu ñu fasiyé jëfé ndigal ñu ñu fasiyé ne jëfé ndigal yii ba ni ko sëriñ bëggee ba ni ko sëriñ bi bëggee ñu def ko ñu defé ko noonu defe na koy defe ko nu koy njort defe ko nu kawe njortam ci dara Serigne Touba ci dara ji Serigne baa ngi ñaandoo lii kon daal loolu mooy Mbar mii nee na loolu mooy kaddu yi moo moo moo bàyyi ko jëriñu Serigne ci jëwriñu Serigne Touba ja ñu jëriñu ci jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall ja muy kaddu yoo xam ne muy kaddu nag yoo xam ni na ko ñëpp nag maa si fas yéene jëfe te sellal nag jëfin wa wasalaamu aleykum